jigéen ñiy toog jàpp leen na ñooy dem marché dégg naa yéen ñu ne léegi lépp yomb na ma di laaj ndax réew mi lépp yomb na walla dafa jafe dégg naa ñu wax ne xale yaa ngi liggéey may laaj ñu ngi liggéey walla liggéeyuñu xam nga liy dëgg nanu boole sunu doole

dem jëli carte man damaa dem tey sous préfecture bu bu Guédiawaye la fa nekk ci ay carte jaaduwul nag dem leen jëli seeni carte ñi binduwu leen nañu bindu ñi amoon ah, erreur de noonu nañ ko changé xam nga wax gi lan la c'est bien tàccu c'est bien yuuxu c'est bien àndandoo mais la balle bi gën a am importance pour jële fi waa ji sàll kooku may bañ a tudd mooy nu am ay carte électeur bu bos ba jotee yéen waa Guédiawaye ak waa Pikine ngeen taxaw jële fi ñëpp maa ngi nuru mungo maa karimis yi fi nekk à travers Saliou Dieng à travers Saliou maa ngi nuyu aussi nag wax dëgg yàlla maa ngi nu maa ngi nuyu loolu Karim ay magam rek a fi ay magam a fi toog ay jigéenam ma fi tok ñu yag baye ma fi tok ñu ñëw jappalé sen fi tok ñu ngi ñaan yalla au soir du 24 février ma ñuq genn ñu dem ci élection ya Jimbori moom it Jimbori Sall génn ki nga xamné caisse de dépôt et de consignation moy bi bukki bi ñuur bi samba bi lañ ko doon njëkkante naa li dëkk bi ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant